dem na Madina dem bay ci qabru rasul fekk fa may yanu jagleel Cheikh Tidiane mu gàddu ko yadna aouzu billahi samiil alim min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim wassalaatu wassalaamu ala man la nabiya baadahu sayidina muhammadin wa ala alihi waman tabiahum bi ihsanin ila yawmi diini mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu ci turu xalif général de Tijane Serigne Babacar Sy Mansour ak ay rakkam Cheikh Seydil Hadji Malick Sy Dabakh Serigne Babacar Sy Dabbaax ñu di ko gën a xam ci Njool Fuuta Serigne Mansour si Dabbaax ak seeni rakk waaye tamit di leen nuyu ci tuuru Serigne Mansour si Jamil nga xam ne mooy taawu Serigne Moustapha si Jamil ca Faas di leen nuyu tamit ci tuuru Cheikh Ahmed Tijane si. bu Serigne Mansour si borom daara ji di leen nuyu ci turu Serigne Mansour si Al Maktoum di leen nuyu ci turu Serigne Abdoul Aziz si Ahmad ak seeni rakk yëpp waaye tamit di leen nuyu ci turu seriñ Moustapha mi nga xam ne moom la mag ñi teg ca Tiwaawan wax ko ne ko na doon doxalal xadara bi ñu daje fii ci Cissesse ngir waajal journée boo xam ne ñu ngi ko tuddee Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu mu war a am le 23 avril incha allahu rabbi buñ ci yàlla yóbboog jàmm kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ñu jóge ca xadara ba ñoom la ñuy bàyyi rek ñu jox leen programme bi kon nag nu jox kàddu gi rek sunu baay Moustapha Gaye moom mu doxal li nga xam ne moom la war a doxal waaye gannaaw maam Ousmane Samb di président national COSCAS mu ngi fi nu jox ko moom mu tijjil Baye Moustapha waxtaan ak euh, mbooloo mi ci lii nga xam ne mooy journée Seydi Hadji Malick bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku jullit yi mbokku taalibe yi mbokki am di jàmm yi ñu ngi jël sunu wax di ko sof si waxu sunu rakk bi jëkk a àddu sëñ Ibrahima ah di fi daje comme ni mu ko waxee si turu sunu kilifa yi ñu fi yabal tàmbalee ko ci xalifa bi yal na yàlla dolli ko tawféex ak njaboot Seex Seydil Haaji Malick yëpp tegit sunu wax ci Seydi Mouhamed Moustapha si Al Amin nga xam ni daanaka jataay bi jataayam la mu boole ñu ak euh, fédération Tëngéej boole ñu ak daairatul muxtafin boole ñu ak daairatul ahmadiya nga xam ni suñu rakk Assane Sylla Thiaw waroon na fi teew boole ñu ak euh, waa kër sëñ Mansour si boroom daara ji si jëmmi action daara ji Pape mi ngi nii toog ak mbooleem section koskaas yi nga xam ni ñoo ànd nag ñoo ñu seq daayira bi seq xadara bi yaa di koon mën na fi teewal waa daayatul kiraam ak fédération yëpp sunu wëllëre sunu mbokk taalibe di Salih Keita di directeur général foire ak collaborateur mi ñoo am programme annuel bu ñu daan def ci saabu ramad bu weeru koor jotee di ramadan tuddee ko foire du ramadan mais di exposer li ñuy tuddee produit xalaal ren nag yàlla dogal ci seen gis-gis bu rafet ñu introduir si dimension spirituelle religieuse ak culturelle jagleel ko nag mbooleem kilifooy diine yi nga xam ni moom lañu am ci Sénégal ku su ne ñu wutal la bés ngir mën a waxtaane sa jëf ak li nga contribuer ci lislaam contribuer ko ci Sénégal yàlla dogal na ñu tànnoon nag ñaari bés sedd ko xadara bi bu Tiwaawan mu di le 22 ak le 23 le 22 ñu ñaanoon xadara bi defal leen xadaratul jumaati ajjuma lay doon incha allahu taala bu ñu julee tàkkusaan ba noppi ñu di ko defe fii si CICES wax nañu ak waa ab naaw xadaratu Tijaani ba incha allah ñoom ak sëñ Fata Sarr ñooy ñëw def ko ñuy ñaan ñëpp ñu ñëw fekk se ko tànnaatam beneen journée mooy le 23 avril euh, avril bii ñëw ñu déjee ko Seex Sidil Haaji malik war ci waxtaane nag jëfam ak jëmmam ak stratégie bi nga xam ni moom la doxal ba yàlla dogal tey mu bokk si ñi nga xam ne ñoo liggéeyal Sénégal lu ñu mën a wane si àdduna bi yëpp a ah, bëccëg boobu nag incha allahu taala à partir de onze heures dinañ commencer mise en place bi dina am conférence boo xam ni Serigne Sidi Ahmed si Al amine mooy ñëw introduire waxtaan boobu su ko defee ñu di si oo mbokki taalibe yi yëpp nag nga nag kenn du ko delloo. mënoon nañ def seen foire rek te kenn du leen sikk ci formule ba mu amee woon waaye bu ñu yëgee ne war nañ ci associé suñu kilifa diine yi ba ku nekk ñu utal la bés dafay jaadu njaboot yi ñëw sagale leen loolu waaye itam nangu teraanga boobu nga xam ni moom lañu jox suñu kilifa diine yi ndax ay la yéwén Sénégal développement kenn mënu ko réussir te boole woo si yéene ak jëfu suñu kilifa diine yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi asalaamaaleykum. gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen balwaax ah ñi ma jëkk a wax nag muy sunu rakk ji nga xam ne mooy Ibrahima Diouf di muxtafiina te fa tabaarakalla lii ñuy wax yëpp mu ngi démarré ci ñoom ñu yaatal ko ba mu yaatu lool ci ndigalu sëñ Moustapha Sy al amin ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci ziar ci kontaan lool macha allah ñun nag ci sunu wàll fi ñu féete mooy xam ngeen xadara bu nekk day am mobilisation ah mobilisation boobu nag ñun moom la ñu dénk mobilisation boobu nag dafa am ay structures yu bari yoo xam ni yi ñoo ko bokk di ko def waaye macha allah yàlla def na ci xadra Seydi Hadji Malick structure yooyu yëpp d' accord nañ rawatina nag Seydi Hadji Malick Sy mi nga xam ne moom moom mbir mi donc structure yooyu ma commencé ko ci daayatul kiraam bu Mansour Diagne fa tabarakallah donc cité ji aussi Ahmadiyya un Ahmadiyya de mooy daayira bi ak fédération bi ah di ci tudd tamit famille Sëñ Moustapha Jamil bu Faas di ci tudd tamit famille fa Sidi Ahmed si bu Ruy Thier bu loolu weesoo nag ñu ci tudd tamit ah, ki nga xam ne mooy euh, fédération euh, bi nga xam ne sunu baay Maodo si moom moo ko jiite mooy ñu koy tuddee fédération Maodo ñoo ñëpp mbir mi da leen concerné ñu leen ciy woo li ci des nag mooy li nga xam ne mooy fédération yi fédération yi nag. dafa am fédération yoo xam ne ñu ëmb fi nga xam ne foofu la ñuy defaree lii ñooñu li ñu jëkk a ndax ñoo war a jiitu ñëpp muy fédération Dakar bu Abdourahmane Pay fédération Thiaroy bu Baye Cheikh fédération Tëngéej fédération banlieue ak li nga xam ne tamit mooy ëmb lépp loo xam li mooy taxawaay bu ci xadara bi te ñu war leen a woo ci mbir mi bi ci tegu am na li nga xam ne li ñuy waxee mouvement affilié mouvement affilié nag dafa doon loo xam ne lii ah li mu ëmb nag nii la mooy dañu am njaboot goo xam ne gii mu tàmbalee ko ci fiina bu Serigne Moustapha Sy Al Amin action daara ji di nga xam ne ah sëñ Cheikh bu sëñ Mansour mooy kilifa ga li nga xam ne tamit mooy Abrar bu sunu baay Euh, si Abdoul Aziz Al Amin li nga xam ne tamit moom mooy euh, daayatul nexmati ci wàllu jigéen ñi parce que ñoom tamit ci mbir mi la ñu bokk ku nekk xam na ne jigéen moom ah lu mu dugul rek xëy na lu bare dana yàqu bondo kàddu yi loolu rek lu ëmb ci fuwaar bu dakaar moo koy organiser ak Tawhid TV mm-hmm. waaw ñoo lëkkaloo ñoom ñaar pour organiser ko fa tabarakallah donc loolu macha allah ñoom buñ jógee Tawhid TV nañ xool nuñ koy gën a yaatale incha allah ba ku nekk man ci jot ñu ngi ci invité ñëpp jullit yëpp allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jama du jekki ba ñuul doomi gaay nday fadla baaxo jama du jekki ba ñuul doomi gaay nday fadla baaxo